بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di nuyoo bi nga xam ne moom la suñ boroom jagleelee ñi gëm yàlla ñu koy nuyontee ci kaw suuf mu beral ko berndeelee ko ñi ko gëm ñu koy nuyoo ci bu ñu tàbbee àjjana yàlla suñ boroom defal nu loolu muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nu ngi jiital ci nuyoo bi sunu wayjur wi sa njaay di ñaan yàlla mi nga xam ni moom rek moom mooy ki mën a sàmm yàlla na yàlla sàmm ko. ndax dañuy wax ni loo bañ mu réer wala mu yàqu da nga koy dénk sàmmkat bu mag bi muy suñu borom kon nu ngi ñaan suñu borom mu sàmm ko guddal aw fanam te may ko wér defal ko tawfiix akuk yombal akuk nangu ci liggéey yu rëy yi nga xam ni xëy na barab bi mosuñu fee ñëw waaye ñu ngi ko doon dégg nuyoo bi di ci teg mbokki jullit yi nga xam ne ñoo fi daje nga xam ni ay mbokki jullit lañ waaye ay mbokki pas-pas lañ di ñaan sunu borom mi nga xam ni moom mooy ku mën a sàmm kii mooy xayrun xaafidan di arhamur rahimin yal na yàlla sàmm ñu waaye yal na yàlla yërëm ñu ndax càmmeel gi mooy tax du nu jàdd yërmandeem ji mooy tax ñu tàbbi àjjana te ñaar yëpp lañ soxla yàlla sunu borom defal na ko. comme ni ko sunu mbokk mi junjee léegi mbokk jullit yi xam ngeen ni weeru koor mi ngi dëgmal si dëgg la mawdo mi mbokk yi tànnoon mu jekk la ci ñu def ko ci bu weeru koor di dëgmal si mook bi ñu ko suppee benn lañ waaye dafa benn relation bu ñaan am ak weeru koor boo xam ni xëy na dina am ñu ko seetlu waaye am na ñu koy romb di jàll te duñ ko seetlu ñaan ak jaamu yàlla la waaye jaamu yàlla gu yomb la mbokk ci biti dañuy wax ni adduaau huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla damay wax ni jaamu yàlla yi ci gën a yomb gën caa neex mooy ñaan ndax fi nga toog ngay toog doo ci sonn doo ci ñaq doo ci def benn énergie bu tax ñuy wax te it may ma rek ngay wax ba pare ñu may la la nga bëgg ba noppi bindal la ci jaamu yàlla jàpp naa ne mbokk yi ku am ak xereñte ak ku mën a seetlu di nga xam ne gii jaamu yàlla moom jig nañu lool te arrangé ñu lool ñaareel bi mooy kii maye ci boppam moom dafa bëgg nga di ko ñaan àddina gis na ay tab ba tàyyi ku mën a maye te bari le ci ay mbindeef waaye nag tab boo ci indi rek boo tuddee suñ borom rek day daal di seey ci biir suuf si ndax tab boo xam ni day tàllal ay loxoom ci guddi ni ku tuub ak kuy ñaan ñëwal bëccëg bi mu tàllal ay loxoom ni ku tuub ak kuy ñaan ñëwal yemul ca loola yow mi bank sa loxo nga ni ñaanuma sax mu ni mere na la dem ba mën laa dig sax mbugal ci ñàkk gi nga ko ñàkk ñaan yaakaaruma ni gis ne du caagi ni suñu borom daa nekk suñu borom rek moo tax ñuy wax loolu waaye même bu nekkul woon ni jëmmi suñ borom lim nekk suñ borom rek jëmmi kaay leen ñaan ma ma may leen mbaax gi ci nekk ak yéwén gi bu ci àndeek boo ma ñaanut ma mere la comme ni ko waykat bi doon waxee allah allahu yaxdabu xiina tarakta su'aalahu wa bunayu aadamu xiina yusalu yaxdabu yàlla moom boo ko ñaanut da lay mere nit contraire bi la boo ko ñaanee xam nga koo fi ñëw ñaan ko fi ne boo lëggee boo ñëwaatee bu la waxul soof nga ci làmmiñ dana la ko wax ci xol mbaa ciy bët waaye suñ borom boo ko ñaanut moom ngay am jafeñ-jafeñ sa digganteeg moom mbokk julit yi nun bu nu yëgee loolu ñu yëg ni ñaan fii la toll te li ci nekk lépp di sunuy arrangement ak sunuy njariñ jàpp naa ni importance bin ko jox daañ ko dolli waaye fulla ak faayda jën ko jox daañ ko gën a dolli ba pare nag ak ibaada la ak jaamu yàlla la bal muy jaamu yàlla gu foor goo xam ni sunu borom da koo digle seetlu bi ma junj sànq ma ne ñu bari duñ ko seetlu mooy xam ngeen ci suratul baqara sunu borom dafa indi ay wax ci koor kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ba ca jeexintal ba يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كور جيخنا من وإذا سألك عبادي عني بنا علاقة مو أم تدقنت نيان أكور جابنا ني ميرم كور جيخنا برنانشا waaye sunu borom teg ci ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ay jooju boo ko seetloo fi ko sunu borom bokk nga taxaw di ko seetluwaat koor di weer wu rëy wu màgg sunu borom jaamu yàlla yi fi nekk bari na naafila yaa ngi tudd ko foofa naafilay koor yi tarawix qiyaam yi mi ngi fi tudd ko foofa joxe azaka ngi fi tudd ko foofa dogal ku koor mi ngi fi tudd ko foofa waaye ñaan la indi rek ni ko ràjj ca pegg ba loolu kuy amuk seetlu te def tadabbur quran boo ko jàngee di nga xam ni aay ji li ko bokk fii dug neen kon am na relation bu rëy bu dox diggante koor ak ñaan balaa may ñëw ci ñaan damay wax ni mbokk jullit yi jàpp leen ni benn foire ngi nii buñ ni day waaj a egsi foire baa ngi diire 30 jours wala 29 jours foire boobu yow commerçant bi dañ laa wax ni indil bagage yi nga am yépp te loo indi dana jar te loo jaay dana fulu bal 30 jours yooyu am na nu muy demee sax nag day bu baaxee dëgg-dëgg di nga ci liggéey loo xam ne 6 mois ci at mi mënoo koo liggéey ci sa liggéey bi mbokk jullit yi ban xeetu préparation ngeen yaakaar ni moom la commerçant bi di préparer foire boobu ci préparer ay standard préparer ay ñu làkk-làkk wa nga xam ni bëgg na koo soxla te mënu ko jël ay employé fas yéene leen liggéey loo di veiller ci ay dossier ak a signé ak a wax ci téléphone di def ay pexe ngir foire boobu kat ma dem exposer sama marchandise mi man koo jaay te loolu mbiru àddina kese la billahi aleykum foire boo xam ni ki ko woote mooy sunu borom mënoon koo woote benn fan kenn ku nekk mu jox la lang ca am lépp te mën na ko mu yokk ko ba mu mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan mboolem li nga yaakaar wala nga di ko dégg wala nga di ko xam ci xeeti mbaax diggéne ko ci foire boobu yemu ca loo ci def mu ful ko yemu ca loo sàggan sàggan sàggan mu am ay occasion yum la fa may dogu ca la xëdd ca la taraaweex ca la ak ak ak numutati laylatul qadr bi ci nekk jàpp naa ni occasion yooyu buur bu doy ni sunu borom ak ni mu fooree ak fi mu war a egg ci xolub ku gëm yàlla boo yëgee ne moo woote woote bi da ngay def na salafu saalix doon def aay ji suñu borom ndax walladina yutuuna ma aataw wa qulubuhum wajila annakum ila rabbihim rajiun nit ki day def lim war a def ba pare fit waa ngi naan tëf tëf tëf tëf ndax mi ngi tiit naan est ce que mbir mi yàlla nangu na koom déet ndax mbir mi fi mu ne waa ndakaaru yépp bu ñu waxoon ci yow diw moo baax diw moo nangam loolu amul benn njëriñ ci kanam suñu borom ndax suñu borom du la àtte mukk ba woo nit ñi ni kaay leen lu ngeen xam ci moom suñu borom du la àtte mu yàgg mu ne ah nit ñi kat newoon na nangam déedéet waaye suñu borom kat lam xam ci yow loolu la lay àtte kon jàpp na ne mbokk jullit yi suñu borom yàlla mu màgg moom bu fekkee moo woote bis boobu digge ci lim ci digg muy diggab dëgg bi bu foire boobu yegsee da ngay def na salafu saalix doon def suñu wooree ba wori danañ tegalu mat juróom benn weer yoo xam ne sama kooru daaw ga laay xalaat di ko rectifier di xalaat njàggante yi ma ci def ak gàttañ lu ga bu juróom benn weer desee ci weeru koor wii di ñëw mu commencé di préparer tàggatuwaat mbokk jullit nit ñii ñoo xamoon foire weeru koor lu muy tekki ndax juróom benn weer ku ko jéggalu njaaxu mi at mi passé préparer ko juróom at mii di ñëw foog naa ni at mi day jeex tàkk dootoo amati temps booy toog di waxtaane moo tax kenn ci salafu saalix ba korite jotee mu romb mbokk ya comme ñun ni ñuy def rek toog di kekkantoo di waxtaan bay xaqtaay mu ne waaw yéen est ce que suñu borom dafa nangu seen koor gi gars yi ni tekk mu ne ah bu dee yàlla nangu na ko day du nii ngeen di sante seen borom noonu la ñu war a sante ku nangu sa sa jaamu yàlla su fekkee yàlla nanguwu ko moom jàpp naa ni waroon ngeen a tiit ba du ngeen am jotug def lii kon ñaar yooyu yëpp bu mu ci mën a doon tiitaange day am ndax bu doon yàlla nangul na la ko subhanahu wa taala du nii la ñuy santee suñu borom bu fekkente ni nanguwu ko nag moom fal musibatu aazam kon mbokk julit yi foar weeru koor ngo la ci ñëw ci ay ngëneel ak yooyu yëpp ñàkkul xëy na waxtaan yi fi jiitu wala yi ñëw wala yeneen ci waxtaan ci yeneen i barab ku ne dégg na weeru koor ak li ci nekk ci ay ngëneel ak lim bari ndax li ci ñëw ci ay xadiis bari na bari waay goo xamante ni doy na ca rek benn weer woo xam ne bu yegsee sunu borom day tëj sawara tijji àjjana jàpp naa ni ki tëj sawara bu doon mbir mi daa tege ci moom ab bëgg-bëggam kese kese kese du tàbbal kenn foofu ki tijji àjjana bu fekkoon mbir mi day tege ci mbirum bëgg-bëgg rek waaye daf ko lal ci ay jaamu yàlla ku nangu kon jàpp na ni ñëppay tàbbi àjjana seytaane mi la doon yàqal mu dem yeewal la ko yemul ci loolu mu ubbil la buntu fi'al xayraat yow mii wut yiw aqbil ñëwal ndax buntu àjjana tijjeeku na yow mii wut safaan aqsir gàttañlul parce que buntu sawara tëju na ak xeeti yëf yi ci rot foog naa ni ku ko xam mbokk jullit yi jàpp naa ne bu weeru koor wi yegsee fierteeg mbégteeg kontaante gi gi nga war a àndal guy tàqalikoog sago dëgg dëgg nit da lay xool rek xam ne yow mii kat da ngaa am loo kontaan fan yii sa waay lu xew temps yi nga ne ko weeru koor wee waaj a ñëw parce que yëg-yëg bi nga am mooy bel-beli gi war a feeñ ci xar kanam ku gëm yàlla di wane ne weeru koor a ngi ñëw traite bu may profité ngir raxasu mi ngi ñëw war nga cee góorgóorlu mbokk jullit yi xamoo ndax koor gi passé nangu nañ ko wala déet gii di ñëw xamoo ndax danga ko fekkeem déet boo ko fekkee xamoo ndax danañ ko nangu am déet tiitaange de daal di tàbbi sa dund gi yëpp kon nag mënoo lu dul def la Ibrahima doon def ba ko suñ borom waxee tabaxal kaaba gi te ku ne xam ne ne tabaxum kaaba lu rëy la bokk julliti kaw suuf ak mbindeef yi fi nekk niñ baree yonente yàlla yi nekk ci kaw suuf ak niñ baree malaaka yeeg nan toll ak seen lim jibril gën caa foor ah ndax moom zi quwatin inda dil arshi makin mutaain foofa thamma amin kuñ jox kuñ jox orma la kuñ jéggal la te sunu borom sant ko mu tabax kaaba gi sunu borom sant ko yonte yàlla ibrahim jàpp naa ni bu doon mën a mbaa kenn ci yéen kooku moom at moomu jàpp naa ni marché bi nga gañe moo gën ci marché yi àddina bi yëpp waaye ibrahim ba mu ko tabaxee ba noppi dafa def li ko gëm yàlla war a def mooy nit ki même bu la yàlla defalee tawfiq ba ngay jaamu sunu borom tiital ci say taqsiraat ni rabbana yow sunu borom taqabbal minna yàlla nag nangu lii nu doon def ndax fi ne Ibrahima tabax kaaba gi amul benn njariñ bu fekkee yàlla nanguwu ko tey jii yaa def nangam yaa def nangam ba nit ñi di ko coow bu amul benn nangu suñu borom amul njariñ taqabbal minna yaa yaa nangul nu innaka anta samiul alim mu teg ci wa tub alaynaa jéggal nu parce que nit ka mën na laa sant benn mbir nga def ko ba yàggal foog ni defee nga ko na nga ko war a defe fekk defee nga ko noonu koor gaa ngi ñëw fi mu nekk nii am na koo xam ne ci ñun yaakaar na ni fi mu ne gu daaw gi defee na ko na mu ko war a fekk déedéet waaye taqsir googu moo tax nga ne taqabbal minna wa tub alaynaa yàlla nag ñu jéggal gàttañ la bu ci am ah yàlla nañu ko jéggal innaka anta tawaabu rahim loolu nag mbokk jullit yi muy julli gi muy koor gi muy lépp xataa jataay bii ñu ñëw sax kenn ku ci nekk jataay boo def mu dig jaamu yàlla war nga koo jiital mbokk jullit yi ñaan mooy addu'a ci làkku arab daa mooy woona daa fa daa rabbahu anni maghlubun fantasir mu daal di woo kam woo mooy sun borom addu'a bu ñu ko waxee bil alifi wal laam ci sunna mooy ñaan ñaan nag dafa am ñaari xeeti ñaan daa am ñaan goo xam ne li ngay ñaan nit mën na ko am na ko te sañ nga koo ñaan nga ñëw ne diw kat man dama am problème mu junni doo ma ci dimbali nga may ma junni wala nga sarax ma ko wala nga ila axiri kon da nga koo ñaan loolu dara newu ci googu ñaan taxut ñuy wax parce que da ngaa ñaan ki nga war a ñaan te it li nga koy ñaan man na ko te it suñu borom may nañu ñuy ñaanante ci liñ man ndax moo ñu digal ñu dimbalante dafa am ñaan goo xam ne nag moom la ñuy wax ak jaamu yàlla ndax geedug jaamu yàlla gii moo di jaamu yàlla nga xam ne boo ko defut am bàkkaar boo ko defewut nin ko bëggee am bàkkaar kon loolu ma ta bàyyi xel boo ko defut am bàkkaar boo ko defewut nin ko bëggee nga am bàkkaar kon ñaan gi ngay ñaan sunu borom googu nag ñaan la goo xam ni kenn du ko defal doomu aadama ko du sunu borom mbokk julliti mooy loo xam ni yàlla rek mooy ki ko man nga xam ni lii moom pour wan la gis nga salafu saalih ni ñu wuuteeg ñun ak niñ mën a bañoo ak am njaxas am na ñoo xamante nii dañoo tàggatu woon ci sunna ba duñ ñaan même boo ñamee soxla duñ ko ñaan loolu nag waxuma bu ko kenn def de dama ne wax am na ñoo xam fii lañ àggoon am na koo xam ne fi ne tey même bu amoon problème mu 5000 baya boo mën naa dox ba tërëf dee waaye du la ko ñaan moom la suñu borom ñoom bokk nañ suñu borom di junju naan ca ji tàmbale ay ba wax jeexintal la yasaluna annaasa ilhaafan lil fuqara ba mu tàmbalee mu ne taarifuhum bi siimaahum ñoom da nga leen di xool xam ni kii kat am na aajo ci nangam moo tax waa ji ñuy wax abdullahi ibn al mubarak ak sufyan thawri dañoo toog benn tàkkusaan ba mu yàgg ñu dégg ni kat fii ci ginnaaw Bagdad am na benn jigéen ju fa nekk joo xam ni moom daal kéemaanu suñu borom la moom daal ku mën a jaamu yàlla koo xam ni kéemaan la abdullahi mubarak sufyan thawri ñun nañ dem seeti ko ñu ñëw ganesi ko ñëw bi ñu ñëwee fekk kër gi ndeysaan melul na mu war a mel mbaaram ñax la ma nga lënd ila axiri ndekete moom ak ki nekk amirul muminin ca waxtu woowa ay mbokk lañ jàpp naa ni ku ñu président mooy sa nangam jege la lool foog naa ni sa dund war naa mën a soppeeku ci li nga xam ci jamono abdullahi ibn al mubarak ni ko waaw yow yàgg amirul muminin yéen a bokk nangam ak nangam xoolal ni nga tumarankeeg fi nga nekk ni mu wéete doo dem ñaan ko même bu dee sa kër gi sax mu tabaxal la ko ndaw si ni ko ibnil mubarak yaa ma bett yow ak ni ma la fonkee ak ni ma lay dégloo ak ni nga nekkee borom xam-xam ma yaakaar ne yow moom ku ne moo may dëgmal moo may jañax ci àddina ba mu des yow man foogoon naa ne yow da nga may gën a dëgloo àddina waaye doo ma wax may dem ci àddina yow àddina ki ko moom muy yàlla te man ñaanuma ko ko mu defaral ma ko ma dem ci nit di ko ko ñaane mu ne ko maadallah loolu du ma ko def ibnil mubarak keroog dafa jooy jooy jooy jooy jégg dayoo am na ñuy wax ni sax ginnaaw bi def moom takk na ko ibnil mubarak ñenn ñi ibnu mubarak ñenn ñi sufyaan thawri moo ko takk loolu may wax noonu ku dellu ci téere bu ñuy wax sifatu safwa ibnul jawzi moo ko taalif di nga ko ca fekk wala la ko dem ci siiro alamin bala kadalika di nga ko ca fekk kon loolu moo la woon am na nit ñoo xam ne ñoom même bu ñu amee aajo ci nit duñ ko ko ñaan xam ngeen yonent yàlla saa salaam bokk na ci lim yaree woon ñenn ci saxaaba yi am na ci saxaaba yi ñoo xam ne seen karawaas bu waddaan sax waxuma la ñaan may ma nangam de faral ma sama karawaas sax duñ la ko wax faral ma sama déedéet am na benn saxaaba karawaasam dafa wadd kenn di ko far mu ne ko tegaat ko fi mu nekkoon mu wadd faral ko boppam mu ne ko waaw lii xanaa du ma sa mbokkum julli mu ne ko oxon kay waaye yéen saa salaam daf maa dénkoon su ma mënee fexe ba bañ a soxlaal kenn lenn ma def ko ma gën lu may ñaan ma ñaan ko yàlla xoolal xoolal dégg-dégg boobu fi mu toll waaye nag martaba yooyu gis nga nit ki saa bu ca tàggatoo ba yegg fa maanaam léppam suñu borom daf koy yembal subhanahu wa taala kon ñaan mbokk jullit yi mooy addu'a mooy nit ki ñaan yàlla subhanahu wa taala soxlaam déglul suñu borom yàlla subhanahu wa taala soo demee ci jeexintalu su ci suuratul baqara ca aaya ja jeexintal ca fa suñu borom di jàngalee koor déglul aaya ji waaye bul ko déglu déglu nopp rek nga déglu ko settantal ko ndax mbokk yi xam ngeen ni alquran ci boppam ka la ca gën a jariñu mooy ki ko gën a settantal settantal gi mooy dëgg la ñu ngi dégg alquran ñu ngi koy jàng ka jàngaat ka jàngaat waaye est-ce que def na benn jeexintal ci sa xol moo tax Ousmane doon wax ni sunu xol yi su fekkonte ni laap na dëgg-dëgg du suur ci alquran te wax na dëgg wax na dëgg da ngay gis koo xamante ni fi ne musique du ci doyal day déglu rek foo ko fekk moom du doyal mukk moom daanaka même buy nelaw sax day taal musique bi te loolu du bëgg musique kese dafa dem ba dafa travailler xolam ba mu tàmm ko est-ce que yow alquran yegg na la foofu yow da ngay gis kuy déglu musique ba mu yàgg mu wadd daanu wala mu xëm parce que effectivement seytaane dafa ànd ak moom yow miy jàng quran est ce que alquran dana def benn jeexintal ci sa xol foofu da nga ciy nattee ngëm yàlla déglul yàlla subhanahu wa taala nga tadabbur aaya ji settantal ko waaye nga xoolaat fi ko sun borom dugal nga xam ni kon koor am na relation ak ñaan borom baa ngi wax ni audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim وإذا سالك عبادي عني فإني قريب وإذا سالك عبادي عني فإني قريب وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون yàlla mu ne wa ida sa'alaka ibadi anni jaam yi bu ñu la laajee ci mbirum sun borom waaw fan la wax ci tàmbale koor lan nekkoon koor gi jeex na te koor gi yëpp sun borom lañ koy defal kuy woor da ngay bëgg sun borom daal li koy nangul te ñun ñëpp xam nañu koor ak ñaan dañoo ànd parce que occasion yi ñuy nangoo ñaan da cee bari nit ki mel ni kon ki wóor ki woor dafa war a ñaan loo keneen wala boog am na beneen waxtu wu gën a porté weeru koor ci ñaan wala yu ni mel mu ni ida sa'alaka ibadi anni bu la jaam yi laajee ci lu jëm ci mbirum sun boroom ak nangu ñaan ak am aajo woo ko mu wuyu la ak fu mu nekk ak yëf yi dana gaaw ak yëf yi dana yéex ak yàlla xam na ni mbokk yi damaa toog di xool ñaan ba mu yàgg ma ni gis ka ki xam lan mooy ñaan te am ko addina ñàkkatoo dara dara dara ndax ku mel ni sun borom boo ko amee yaa xi ñàkkatoo dara dara lépp nga am lépp yow kay yaay gis ni am naa lii awma lee manqué naa lii diwoo ma ëppale lee waaye gis nga nit ki amul dara su fekkee amut yàlla waaye nit ki am na lépp bu dee am na yàlla bal nag ñun ni ñuy xoolee bëtub kaw la mooy dañuy xool nit ki kat moom mbubam mi kat xawta rafet dàllam yi kat xaw naa dagg jàpp naa ni loolu njuumte gu rëy rëy rëy la waaye fin war a xoolee mooy nit ki ñu xam ne digganteem ak boroomam subhanahu wa taala lu rëy moo fa nekk yàlla mu ni ujibu daawata daai ida daan man yàlla damay wuyu woote aji woote bi su dee man la woo kon dina wuyu waaye ki muy wuyu mooy ki ko woo kon ki ko woo moo lay wane ñaan dafa am ay teggin dafa am ay heure dafa am lu ñuy ñaanee am lu ñuy jiital am lu ñuy moytu mooy yóbbaale ida daan bu dee yàlla la ñaan kon charte yi daje pour ñaan am mawaani yi dàqu asbaab yi taxaw su boobaa nit ki bu ñaanee suñu borom ni dama koy nangu li ñuy sàkku ci yéen mooy fal yastajibu lii wal yuminu bi charte yi ñaar la wala ñett da ngay ñaan suñu borom waaye da ngay nangul suñu borom ni mu ko bëggee nga di ko defee noonu wala nga ciy jëm la nga man waaye nga gëm suñu borom yàlla bu dee ngëm gi amut wala des na manqué nga fàq nga piliib ci ñaan su fekkente ni bi ngay ñaan ñaanoo suñu borom wala ni nga ko ñaanee du noonu lañ ko ñaanee ndax xam ngeen ni kat kilifay àddina yi dong doo dem ci nit ni ko boo ma nee nga may ma soo mënul nga bàyyi ko jàpp na ni kenn du ñaane noonu nun defe naa du noonu la ñuy ñaanee kon façon bi nuy ñaanee te fekk nit la ñuy defal fa kay fakka bi rab bi nit su fekkee moom nga bëgg a ñaan kon orma yi ngay jox yépp moom mooy borom xorma ji moom lañ ko war a gën a jox kon bokk julit yi saxaaba ya bañ doon ñaan di wax ca kaw yonente mu ne yéen te ngeen def ndànk ki ngeen di ñaan dafa jege lool mi ngi leen di dégg ku jege la jërul ngay wax ca kaw ud'u rabbakum tadarruan wa xufya defal ndànk mokkal rup wàcceel sa bopp innahu la yuhibbul mustakbirin kuy ñaan du réyréelu du sënkaliku du yëkkale ay mag da ngay wàcce sa bopp ba wane ni yow mii kat da nga am aajo ci li ngay ñaan moo tax alquran boo ko toppee même aadaab yi ñu war a ñaan sax day feeñ ci biir aayaat yi mbokk julit yi ñaan ci jëmmi boppam sunu borom déggul lim ci wax ci suurtu Gaafir وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم يا لمن سين برم يا لين ادعوني نان لين استجب لكم ما مايلين الله اكبر يا له من رب كريم كاين نان ما yow da ngaa toog sax ñaanee mu ni te ngaa ñaan ñëwal ñaan ma ñëwal nga ñaan ma astajib lakum ma may leen nga toog mel ni da nga cee amul soxla wala boog mu ni inna alladina yastakbiruna an ibadati ñi lànk bañ maa ñaan te ñànk ñaan yàlla mooy ñàkk koo jaamu su amee mu ni sa yadxuluna jahannama daaxirin booy dee ma lay tàbbal sawar maanaam ñàkk nga ñàkk ñaan yàlla rek àgg na ci nga dee mu tàbbal ak sawar parce que ñàkk ñaan bu amee ça veut dire que jaamu amul parce que jaamu yàlla gi day ànd ak ñaan kon mbokk julit yi ñaan lu am solo la ci dundu julit ayat yu baree baree bari ci sunu borom day xirtal julit ñi ci nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala ud'u rabbakum ak ayat yu baree baree bari yoo xam ne rot na ci téere bi nga xam ne boo ko doon topp day jël suñu waxtu yépp sunu borom di ci wax ñaan mbokk julit yi ñaan doomu aadama fu ne lañ mën a tëj digganteem ak moom ba mu des ñaan xoolal ki ñu tëj kaso jóge na région ba mu dëkk ñëw ci bii ñu tëj ko dal di koy giri saa saa sax jumaa su bëggee génn julli ji du du ko man waaye diggante bi mbokk yi kenn mënu koo tëj déedéet même bu la plafond tiimee kenn mënu koo tëj fi mu nekk nii kilomètres yu bari ngay daw dooga àgg Tamba fekk waa ji Tamba lañ ko jëlee tëj si ko Ndakaaru kilomètres yooyu da nga koy multiplier da nga koy tripler tripler waat ko moom nga koy daw sa digganteeg asamaan si kon diggante biñ la biñ la xañ diggante biñ la xañu la ko gën a yaatu kon su boobaa tàllal say loxo yàlla subhanahu wa taala nga ñaan ko ànd ak toroxlu yàlla subhanahu wa taala da lay wuyu te it nag yonent bi alayhi salatu salaam nee na sunu borom ku laab ku laabiir la ku sell la ku teey la moom yàlla rus na nit ki tàllal ay loxoom ñaan ko xam nga est ce que xam nga ne am na ci nit ñi am na ci ay xeeti tab yoo xam ni rus nañ nga ñëw ñaan leen ñu duñ la may loolu dafa am yaakaar nañ jàng histoire xam nañ toujours dañ ci tudd ku mel ni xaatim du moom kese am na ñeneen ñu mel ni moom ñoo xamante ni ñoom seen kersa mayu leen nga ñëw ñaan leen dara te duñ la ko may loolu su fekkee nit moo man ni loolu fa kafe bi rabbi nit muy sunu borom yàlla subhanahu wa taala beneen bi ci des mooy mbokk julit yi ñaan day ku ko xam mooy lan dëgg-dëgg da nga yëg ni ñàkkatoo dara maanaam fi mu ne da ngay dem ba léegi yow da nga jàpp ni problème yi nga am yépp ñaan a ko war a régler te effectivement sax loola war a am même boo ko gëmul loola war a am moo tax ñun boo gisee suñuy mbir di yeex a sotti mooy taalluq bi ñu taalluq ci asbaab yi moo gën a foor taalluq bi ñu taalluq ci rabbil asbaab muy sunu borom asbaab yi mooy lan allo fa ngay liggéeyee yow sa doom ji doon wàcc ci escalier bi rek tànk bi damm automatiquement lan moo njëkk a ñëw ci sa xel ban médecin ban hôpital mba nangam est ce que kii gën a aay yooyu mooy njëkk a ñëw ci sa xel gis nga loolu rek firnde la bu lay wan ni yow ni nga wa fi war a dox sa diggante ak sa borom yàlla des na xale bi kat dafa tàbbi léegi ci teen bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa leen tuddal kaana ida xasabahu amrun salla mbir mu ñëw lu mu rëy rëy rëy da dem julli ñaar rakk dénk yëf yàlla yent yàlla yaqub mu toogam yàgg ñëw ni ko ah sa doom ja ana sa mu ne akalahu zi'b till ga lekk na ko xam nañ ne doo ñu gëm wax a wax ba àggal lu mu wax benn bi dani allahu almustaanu ala ma tasifun beneen bi lu mu wax innama ashku bathi wa xuzni ila allah ba léegi saar wi déggu leen ci kaay def wax idhabu fa taxassasu min yusufa ba mu koy wax fekk na def na sabab ya war diggante jaam ak borom ba pare loolu mooy kaay ñu dem hôpital nit ki na ñaan yàlla subhanahu wa taala wàkkiru ci suñu borom ba pare izhabu fa taxassasu min yusuf mooy nit ki tamit day def sabab parce que doo ñaan yàlla ba noppi nag wëlbati ko toog benn place doo def benn sabab déedéet waaye sabab yi dama koy def ngir dañ ma kaa digal bu dul woon dañ ma koo digal du ma def benn sabab léegi ñun nag li tax suñu yëf di yeex a yegg si mooy saa bu ñu amee problème sababi kaw suuf la ñuy njëkk a xalaat ka sababi asamaan yàlla xam na ni di nga gis ay nit yoo xam ni comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam ñoom bu ñuy ñaan yàlla direct yàlla di ko nangu loolu nag ak togg xol la ngay togg muy muy muy muy wañax ngay togg muy wañax ni ngay baxalem ndox muy bax di def ba ngeer noonu ngay togg xol bi di ko togg muy wañax da nga dem ba xol bi dana yegg ci ak bëgg yàlla ak cafka ak gëm ni yàlla rek mooy nangu gëm ni soxla yépp yàlla rek moo ci man dara yàlla xam ne ni léeg-léeg nga am soxla balaa ngaa ñaan sax suñu borom fajal la ko ak soxla su mu mën a doon nag moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala di ñu nettali ci téeréem bu tedd bi ay yonent te su ma nee yonent bu kenn ci yéen ya ñooñu ay yonent lañ kat moo tax yàlla nangul leen déedéet soo demee ci suratul anbiya bi sunu borom tuddee nettali yonent yi ba pare dafa wax ni ah ka nga xamante ni soxnaam de yonent yàlla ayuba ca feebar ba bi mu waxee ba àggal wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu maahu rahmatan minna mu ni wa dhikra lil aabidin te anta min al aabidin da ngaa fàtte ne yàlla mu ne dama ko def ngir dalal xelu ñi ci des ngir ñu xam ne yëf yi du ay yonent rek ñoo ko jago wala ay malaaka ñoo ñaan suñu borom di nangu mbokk yi lii dafa dal xel trop gis nga yonent yàlla nuuhin alayhi salaatu wasalaam fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلى آخر الآيات نوح بمجاخلة يعلم أن إسماعيل فلك بأعيننا دفر القال ما لا يجس yàlla naa nga mu ne ko wala tuxaatibni fi alladina zalamu fi ne jëratul wax affaire bi leer na ba pare téemaa continué daawa mu ne ko jëru ko jëru ko innahu la yuminu min qawmika illa man qad aman ñu gëmoon gëm nañ ba pare sayee kenn dootul gëmati nu wax ci loolu sukkandiku ni ko innaka la intazaru yudullu ibadak gis nga fa daa rabbahu nuux dafa ñaan yàlla ci saasa ni anni maghlub yow suñu borom man yëf yi fi ne amatuma pexe not nañ ma fantasir xoolal subhanallah ñun duñ doon ñaan façon sajja bu nekk façon xëcc bu nekk façon maanaam wengal bu nekk danañ ko dugal ci ñaan bi yaakaar ne loolu mooy tax ñaan gi nangu mbir mi ngi aju ci xol bi and nii maxlubun fantasir xool affaire bi ni mu gàttee yàlla mu ne fa fa ca saasa rek fataxnaa abwaaba sama ci laa ubbi buntu asamaan yi bi maa in munhamir ndox muy rutatuti moo xam ne kenn xamul fu mu bàyyi ko wa fajjarna al arda uyuuna ma ballal suuf si mu génne ay bëti ndox faltaqa al maau ala amrin qad qudir ñaari ndox yi daje wa xamalnaahu ala dati alwaaxin wa dosor yàlla mu ne ñu teg ko ci kaw gaal goo xam ñu ngi ko liggéey ay dénk ak i pont tajri bi ayunina gaal gi bismillah moo koy taal bismillah moo koy teeral amul moteur amul essence bismillah majraha mu départ bismillah morsa mu daal di teer inna rabbi la ghafurun rahim kenn mësul gis gaal gu ni mel li gën a yéeme gaal goo xam ne yëpp na ñi mu war a yëpp ci ay nit yëpp yëpp ñi mu war a yëpp ci ay rab yëpp lan lañ defoon ci kaw ba tax ndoxum kaw mi duggul ci biir lan lan defoon ci suuf ba tax ndoxum suuf mi fajjarna al arda arda uyunan jam'u la lu tax duggul ci biir ndox mi parce que tajri bi ayunina gaar gi yàlla moo koy diriger moo ko tiiri moo ngi daw ngir suñu jazaan liman kaana kufir sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni nii laa ko nangule moo tax mu ne ko rabbi la tazar al ard min al kafirin dayyaara yéefar yëpp alak leen innaka in tadarhum yudullu ibadak boo leen fi bàyyee dañuy sànq jaam ñi wala yalidu illa fajiran kafaara saay saay saay saay lay jur gis nga bi ko sunu borom defalee loolu ba noppi bu doon ñu ne ku ñaan yàlla nangul la da ngay commencé bëgg a bàkko ko nangam waaye rabbi xafir lii mbokk yi alxuraan ñun duñ ko setantal de rabbi xafir lii xoolal martaba jikkooku toll ba ñaan moom benn personne ñaan benn affaire borom asamaan ballal ndox ca kaw ballal ndox ci suuf yëfi yéeme lool gaal goo xamante nii bismillah majriha bismillah mursaha affaire bi mel ni kéemaanu suñu borom ah affaire bi taw bi jeex mu ni ko yaa Nuux ihbit bi salaamin minna wàccal affaire bi jàmm rek ngay am mu wàcc teg tànkam ci kaw suuf naaj wi commencé tàng ndox mi ñiis comme doonoon ci ñun da nga yaakaar léegi commencé xëy sëkkali xëy sëkkaliku sënkiliku jàpp ne yow am nga martaba suñu borom waaye Nuux ba mu defee loola ba noppi dafa yéeg ni gis nga lu lu la yàlla di gën a defal ay tawfiq rek keroog nga war a gën a diit ci sa bopp rabbi ghfir li wa li walidayya wa liman daxala baytee mu ila axirihi mbokk julit yi xoolal yonent yàlla yusuf alayhi salaatu wasalaam bu fekkee kenn ci ñun dafa yaakaar ni ay moyen bu ko nit ki amee rek moom daanaka soxlaatut ñaan mbokk yi ki am ay moyen moo gën a soxla ñaan yàlla yusuf lan la ñàkk dëkk bi moo fii buur du ma wax sax dëkk bi ndax xam nga boo nee dëkk bi day mel ni comme da nga naan Sénégal te xam ngeen ni Misra ca jamono jooju nekkul Égypte gii ngay xam de moo ko ëpp téeméeri junni yoon gis nga tey jii li ñu dagg wërngal bi ñu dagg ne lii mooy Égypte Misra ca jamono jooju moo ko gën a rëy ba Firawna di xamadi xamadi lu naan alaysa li mulku misra du woon ab dëkk bu ñu naan comme Sénégal ñu ne misra de ay dëkki dëkkaat yu bari lañ boole mu tudd misra Yuusuf mooy buur kon jamono jooju yëpp moo ca fara kaw ci wàllu nguur kon bu dee ndombay tànk tegal fële kooku moo ko ëppale ñëpp ñaareel mooy baayam même baayam sax moo ko yilif te baayam di yonent comme moom te moo ko yilif parce que kilifteef bi mu koy def mooy kilifteefu nekk buur mboolem bu dee alala comme koom-koom ij'alni ala xazaini al ard ba muy nekk ministre la ko waxoon tey moo nekk buur di kuñ jël teg la ala xazaini al ard kay yaa yor économie dëkk bi kooko ñàkkoo de te tey yorul économie dëkk bi tey mooy azizu misra mooy buur bi dëkk bi yépp moom la ñuy déglu moom la ñuy respecté moom la ñu jox cër bu dee alal soxlaatu ko bu dee taax yu rafet soxlaatu ko bu dee ndombay tànk soxlaatu ko maanaam loo xalaat ci koom-koomu àddina matal na ko ba noppi déglul bu baax keroog wa tuuni bi ahlikum ajmain bi njaboot gi yëpp ñëwee lu mu def yusuf dafa xool gis ni dëkk bi yëpp maa leen yilif samay baay ak sama yaay ak samay tànt ak ñëpp maa leen yilif samay mag yi nga xam ne ñoom ñoo ma jëloon tàbbal ma ca teen ba sax maa leen yilif tey fi mu ne woon bu ne woon jàpp leen sama mag ji dugalal ma ko ci kasa bi du ko wax ñaari yoon bu ne woon jël leen sama baay dugal ci kasa bi du ko gars yi dañoo dégg ndigal duñu xool ndax kii mooy baayam ak mooy nangam waaye mu ne rabbi yow sunu borom qad aataytani min al mulk yow de xam naa ne may nga ma ci nguur dara gis nga de min al mulk may nga ma ci nguur dara nekk nguur yàlla rek ko moom waxu ko qad aataytani al mulk de jox nga ma nguur min al mulki la ko wax jox nga ma ci as nguur dara kon loo yore ci ndombay tànk rek yéega ni ndaste ndeysaan as asra lañ la jox di wa allamtani min tawil ahadith fi ne dëkk bi yëpp maa fi raw ci firi gént te min lay wax de xool rabbi qad atatani min al mulki wa allamtani mënoon nañu tawil al ahadith yàlla moo wax ci tàmbali saaro ne maa ko xamal firi gént waxul maa ko xamal lenn ci dani maa ko xamal firi gént moo tax mbokk jullit yi gis nga alquran alquran li tax jëriñuwuñ ci ba tey dañ ko dul settantal man xaw ma dañ ko dul settantal xaw ma dañ koo xamut xaw ma xool yee laab doo xam affaire bi lan la waaye yow alquran boo koy settantal daanaka benn barab ngay taxaw doo mun a bouger mètre parce que benn barab boobu rek daanaka booy xëcc di ñot di dafay mel ni acier da ngay indi yu bare bari yoo xam ne foogoo woon ne alquran dajale na lii lépp wa allamtani min tawil ahadith tuuti ci fii gént ndeysaan xamal nga ma ko xoolal firi gént ni mu fooree nga xam ni buur ba ci boppam la ko génne kaso mooy firim gént firi leen ma sama gént nga ñu ne ko adghaafu ahlaam benn waay ni ko man kat am na ku ma fàttaliku ma nga ca kaso ba mën na koo firi ba mu ko indee mu firi mu ne kii laa soxla génneel leen ma ko daa génne ci kaso bi dem daa génne ci pale bi dem kaso moo tax ba mu génnee ca kaso ba pale la ñëwaat kon ndeke mbir yi nekkul fi ngay dugg wala fa ngay génn waaye fooy dugg na nekk mu doxala sadaqin fooy génn na nekk maxraja sadaqin yàgg-yàgg da ngay am ndam waaye nag ñun lii suñ problème mooy bu ñuy dugg duñ xool bu ñuy génn kazalika mu ne ko fatira samawati wal ard yow de yaay borom asamaan ak suuf fi mu ne nii awma kilifa wax na dëgg amul kilifa moo tax mu ne ko anta wali fi ne yaay sama kilifa gis nga de say responsabilité fu mu mën a toll ba nga yaakaar ni fi mu nekk nii suba mën na maa tëj diw wala def naa nangam wala kenn kenn sañu maa def nangam wala nangam nangam wala man entreprise sangam fa laay liggéey wala bokk man maag njiitu réew mi ñoo bokk nangam nangam gis nga ndom bay tànk yooyu yépp Yusuf xam nga lu mu wax dan yow sunu borom anta wali fi ne yaay sama kilifa xam nga loolu lu muy jàngale mooy doomu aadama léeg-léeg day toll foo xamante ni gis nga bu foofu fitteru da koy yomb lu tax parce que kenn du ko joxañ kenn du ko wax dëgg kenn du ko nangam waaye gis nga Yusuf mi ngi fàttaliku ni kat am na ku ma war a joxoñ am na ku ma war a wax dëgg te kooku kat ab joxoñam gën a foor ñëpp moo tax mu ne ko anta wali yi yow yaay sama kilifa fi dunya nag wal axira mbokk yi lan ngeen yaakaar bu Yusuf day ñaan loolu la war a ñaan moom pale bi moom dëkk bi moom alal ji moo yor nguur gi moo yor ndombay tànk yi te am nag wér ndax feebarul woon lu ngeen yaakaar moom lay war a ñaan mu ne ko tawaffani musliman man fi mu nekk ni awma problème mu àddina problème mu àllaaxira laa am kon mbokk jullit di ki yàlla subhanahu wa taala baaxe ba yow ñaanoo kenn alhamdulillah santal yàlla te nga xam suñu borom defaral na la sa àddina defaral sa àllaaxira yow daa am koo xam day jug pour defar àddinam bëgg a defaraale àllaaxiraam yow moom yàlla boole na ci jaam yi mu defar sa àddina pare gaawal ci sa àllaaxira yow boo yeexee rek deesu la ko jéggal parce que dañ laa jox ay jumtukaay yoo xam dañ la cee sant nga góorgóorlu ca muy wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira jumtukaay yi la sunu borom jox yàlla mu def ko ay outil pour préparer àllaaxira est ce que damay dëkk ci mbaaram ñax rek wala ma fa ma fekk may sol yére yu xutteeku mel ni ku amul dara muy déere wala tan sa nasibaka min ad-dunya bul bul bul fàtte cër bi la sunu borom jox ci àddina est ce que damay téye affaire bi rek man kese du ma dimbali kenn mu ne ko déedéet wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yàlla moo la baaxee dimbali la ba may la nangam nangam sunu borom su ko neexoon mu xañ la ko jox ko man lu ma neex def mu ni déedéet wala tabghil fasada fil ard boo yàqee ci kaw suuf kat innahu la yuhibbul mufsidin kat moom sunu borom bëggul yàq kat gis nga alquran da lay yar ba daanaka yow boo yeewoo ci kaw lal war a teg sa tal tànk ci suuf sax balaa ngay teg sa tànk rek ab aaya njëkk xel nekk sa xel foofu nag ngay dem ba sa dund bi yépp nekk alquran kon tawaffani musliman man amu problème àddina yàlla li ma am problème mooy fi mu nekk nii xoolal kiñ ni moom moo jiite réew mi wala ñu ni moom moo jiite mbootaayu xeet yi wala maanaam luñ mën a wax ci ndombay tànk yi am na alal am na nangam am na lépp ah am na wér feebarul deful dara am na lépp kooku man problème la am tawaffani musliman kooku problème mu tawaffani musliman la am gis nga kooku moo problème ñëpp kooku nga xamante ni ñun jàpp nañu amul benn problème moo ëpp problème ñëpp ndax moom problème mu tawaffani musliman la am est-ce que moom li mu nekk dana ci dee tawaffani musliman mooy man awma garanti ci sama bopp tawaffani musliman wa alxaqna bi saalihin yàlla nag ma dimbale yéegi ma ca gaa yu baax ya man mooy saalihin mooy ab alkarimu ibni alkarimi ibni alkarim yusuf doomi yaqub doomi ishaq doomi ibrahim yonent sëtëb yonent sa tërñib yonent kooku alkarimu ibni alkarimi ibni alkarimi huwa yusuf alayhi salatu wasalaam ma ko yonent arriéral ci saar wi kenn ku ne ci ñun da ngay góorgóorlu ci alhamdulilah ci sunna yàlla baaxee la macha allah yaa ngi góorgóorlu doo jox loxo jigéen doo nga yaakaar ni fi mu nekk nii mucc nga ba affaire jigéen moom jàll nga ci la hawla wala quwwata yow xamoo xoolal yusuf dañu yàlla wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin gis nga yàlla soo ma fegalul pexey jigéen ñi illa tasrif anni soo ma dimbaliwu téye ma asbu ilayhinna damay dem ci ñoom la ilaha illa allah xoolal yusuf kaana min almuxlisina fa jaalahu allahu min almuxlasina wa huwa yaxaafu hada al amr da doon sellal ba yàlla def ko mu nekk ku sell faf mu ni yàlla te xoolal jël nañ matukaayam ba pare rabbi yow suñu borom assijnu ñu tëj ma kaso ahabu ilay moo ma gën a ma yad'una ni ilay liñ may woo waaye nag yëgal wa illa tasrifaan nii gis nga boo ma dimbaliwul asbu ilayhin na damay jeng jëm ci moom wa akun min al jahilin est ce que mbokk jullit yi kenn ku ne ci ñun fi mu nekk nii moom ni mu tiitee Sufyaan Thawri dafa dem ba am lu mat juróom-ñett fukki at ak nangam benn bët bi yàqu da ko doon fat boo ne ko Sufyaan lu tax mais benn bët bi moom yàqu na ba pare beneen bi lay jël def ko nii boo ne ko loolu nag mu ni li ma gën a tiit ci sama àddina mooy fitnay jigéen moo yey tiit ko parce que yonte bi neen bàyyiwuma fitna ju gën a rëy sama gannaaw fitnay jigéen mbokk jullit yi da ngaa feebar xoolal yonte yàlla ayuba
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
ci benn aaya fële
mu ni anni massani addur wa anta arhamur rahimin
mbokk yi seetlu ngeen ñaan yi affaire ni muy gàttee yow yàlla dama bëgg nga may ma nangam ba ma mayee nga defal ma ko da di commencé expliquer mel ni yow ki ngay waxal moom dafay dafay laaj explication bu bari pour mu comprendre rabbi yow sunu borom anni massani shaytaanu bi nusbin wa adab ñaan gi jeex na rabbi yow sunu borom anni massani addur anni massani xam nga lan mooy feebar naa de baat bu gàtt xam nga tey sa xarit bi nga ñëw seet si ko mu tëdd ci lal bi nga ne ko sa waay da nga def mu ne ah dëgg dëgg feebar naa loolu mu defe naa kuy nit te dégg wolof jërul muy commentaire da nga xam ni kii sonn na parce que waxin la woo xam ni kilifa bu ko waxee da ngay xam ni kii sonn na ndokk noo def mu ne ah dëgg dëgg feebar naa sonn naa de anni masani dur yàlla feebar naa de wa anta arhamur rahimin te bokk ji di xoola ayubu feebar def na juróom-ñett fukki at de juróom fukki at ak juróom-ñett 18 ans def na ko ci feebar benn bis ñaari xaritam ñëw di ko seet si soxna fi tuuti ñaari xaritam ñëw di ko seet si biñ koy seet si xam naa bi ñuy génn kenn ki daan ni ah man dama yaakaar ni ayuba mi xanaa daa def bàkkaar bu muy nëbbu ba tax sunu borom di ko seetaan moom ab yonent la ba noppi mi ngi feebar feebar bu méttee nii yàgg ci affaire bi su fukki at ak juróom-ñett mbokk jullit yi ñun fi mu nekk nii ñun ñii ñetti at rek mbokk mu doon ñëw ci daawam yàgg mu tëdd ñetti at feebar ñun dañuy jàpp ne adduna bi tukki na ak mbokk bi ni mu jàmbare ni mu baaxee ah mooy kan dafa jàmbare ba àgg ci ayuba moom mooy kan yàlla da ko wax bi moom moom wax yi du ko dikkal di moom mooy kan kan ban garanti leen ko jox ayuba fukki at ak juróom-ñett te mu nekk ab yonent tey woote te xam ngeen yonent buy ñaan yàlla di ko nangu waaye bi mu déggee kenn ki ni ah damaa ragal daa def bàkkaar boo xam ne suñu borom du ko jéggal xam nga dañuy wax ni gor boo ko bëggee rey rek tuumaal ko gor boo ko bëggee rey tuumaal ko boo ko tuumaalee da nga koy rey après xam nga wax ju dafa métti ci xol te moom xam na ni defut loolu ndeysaan bi gars yi génneel mu ne rabbi anni massani durru man feebar naa de ci weneen saar te xam ngeen alquran bu leen yaakaar day répété dem rek de gis nga luñ la wax fii buñ ko waxaatee fee rek defal tadabbur nga xool am na lu différence bu ci am ak luñ niroo niroo explication anni massani shaytan bi nusbin wa adab urkut affaire bi ci saasa lay nangu warkut bi rëjëli hada mughtasalun baridun wa sarab sharab ci xisa ba mu jeex ci bañ a guddal xoolal yonent yàlla yunusa alayhi salatu salaam ma yem ci boobu ngir waxtu xoolal yunusa mbokk jullit yi ban tiis moo gën a metti ñu góota mbaay la tàbbal la ci géej gi aw jër ni la dallam dugal ci biiram xoolal borom lim fi zulumaat problème boo mënti nekk rek zulumaat la moom nag fi zulumaat lëndëm lëndëm yépp la boole am na problème newatul cay mbokkam newatul ca jéeri ja nekku ca jaww ja mi ngi ci biir géej gi te nekku ca ndoxu mi ngi ci biiru jën wi fis zulumaat problème yi nga am yëpp ba àddina lëndëm ci sa kaw biyee ko gën a lëndëm te yàlla ki mu ko teg ab yonent la ah kon yow jan martaba nga yem ba nga yaakaar ne yàlla du la teg ay nattu waaye bi yunus duggee fa naada fi zulumaat mu daal di woote nekk affaire bi am jërul lamp yi tàkk pour ngay woote seetlu lii ma lay wax gis nga fi ne bu guddi jotoon ngay naafi la nga fay say lamp di naafi la ci ngay gën a concentré wu sax boo taalee lamp yi ci bu dee sa digganteeg sa borom rek ci ngay gën a concentré wu ko boo taalee lamp yi parce que lëndëm lëndëm googu dafa am lu muy jeqi ci sa xol ak lu mu lay fàttali ndax borom leer dëgg mooy yàlla te waman lam yaj'al allahu lahu nuran fa ma lahu min nur nit ki dal di ñaan suñu borom la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin xoola ñaan googu mbokk yi ak nin ko du wax sax nañ ko xeebe waaye niñ ko ñàkkee xam laay wax la ilaha illa anta tawxidun xaalis subhanak tasbixun xaalis inni kuntu min azalimin istigfarun xaalis ay ibadat nga boole ci ñett baat bu gàtt boobu yow sunu borom la ilaha illa ant maa ngi tudd amut lenn lu ñu war a jaamu ci dëgg dëgg gi muy indi njëriñ ñàkk gi jaamu indi loolu ku dul yow subhanak tudd naa sag sell billaay foor nga yow yàlla foor nga sell nga kawe nga inni kuntu min azalimin damaa def njaaxum tey maa ngi nii def naa njaaxum xoolal yonent yàlla beneen saa boo amee aajo nga ñaan ko ci bis bi suñu borom yéen sax même jéggalu bàkkaar daa bokk ci ñaan yi gën a foor pour nit ki jéggalu suñu borom fastajabna lahu yàlla mu ni ma daal di koy wuyu fa dégg te xoolal ñaan yi kat fa ci saase rek fa ci saase rek istajabna lahu ma daal di koy wuyu wa najjaynaahu min alghammi problème yooyu mu nekk ma génne ko ca nga ne ah kooku de yonente la mu ni wa kadhalika nunjil mu'minin yéen jullit ñëpp laa wax ku ci ne ci ay xat-xat boo ko defee nii rek ma defee la ko nii loolu mbokk yi dafa dal xel kon ñun ñëpp ñoo ci bokk kon boo tàppoon yonente yi da ngay indi yu baree bari boo ñëwee ci sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ko ndeysaan ca badar dafa yëkkati ay loxoom di ñaan ah yow sunu borom ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ñoo fi nekk di la wéetal ñii moom xam nga buñu leen rayee kaw suuf moom jullit ñi jeex fi ah yow sunu borom gis nga yéefari de bew nañ de yi ëppal nañ dayo dayo de di ñaan ba kaala gim tegoon ci mbaggam wadd jibril wàcc ñu bari dañoo yaakaar ne aay ji daa wàcc ginnaaw xare bi aay bi avant xare bi la wàcc sa yuhzamul jamu mbooloo mii di ngeen leen gañe wa yuwalluuna dubur tëppit la ñuy def daw bali saatu mawiduhum jox naa leen rendez-vous alaxira wa saatu adha wa amar alaxira ay gën a metti ci ñoom jullit ñi xam nañ ne ñooy gañe badar wala ñenn ci jullit ñi xam nañ ko te xeex bi tàmbaleegul ca la ko Abubakar yëkkatilee kaala gi ni ko sa ñaan yi doy na tey jiwum yàlla du neenal sa ñaan Omar naan ku ne far yonent bi waxoon fa lay daanu fa la daanu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ci yonent bi la alayhi salatu salaam ci ñaan yàlla nangu ko léegi nag mbokk jullit salafu saaleh ñooñu ay yonent lañu woon baal yonent yi nga ñëw ci salafu saaleh ay mag yu baax da ngay si yàlla da doon nangu seen ñaan ci saxaaba yaak taabiuun ya am na benn saxaaba boo xamante ni dañ ko waxoon ni ko yow day yéefar yaa ngi lay rëbbu nee nañ bu ñu la jàppee danañ la def nangam ak nangam danañ la xottate daggat la def la comme kuy togg supp ni muy def morso yàpp yi mu yeew yàlla dee de ragaluma ko ba ñu ma dee waaye nag même bu ma dee sama koor bi yàlla na nga ko sàmm ba buñ ko laal bi mu faatoo suñu borom dafa yebal ay yemb ñoo ñëw wër koor bi lii ku dem ci seeru alamin nu bala imam zahabi man ko fay nettali ku dem ci bidaay wa nihaaya ibn kathir man ko fay nettali yéefar yi dañoo ñëw jub ko yoo yamb yi songu leen te yamb yi li gën a yéeme loolu lépp mooy bi jullit ñi waaxar waaxar yi ñëw rek yamb yi naaw dem seen yoon loolu xam ngeen ni wax dëgg yàlla kan ko defal du yonant ab saxaaba la saxaaba yi ba léegi da nga ciy gis koo xam ni yàlla defal na ko ci tawfiq nangu ñaan muy Abubakar muy Omar muy ñeneen muy Saad nabi Waqaas gis ngeen ka ko tooñoon waa ji di kon Saad bu bu attee du maandu tey day def nangam day lekk suñu alal ji day nangam mu ne yow suñu borom kii de bu fekkee li mu wax du dëgg yàlla na nga silma xaloo ko kumurloo ko teg ko fitna muy làmbaatu xale yi jigéen yi ci mbedd mi te noonu la ñaan gi amee mu dem ba ay yéenam wadd bët yi suulu fu ko xale yi jigéen yi rombee mu daw di leen tataf boo ko laajee mu ne man li ma nekkee tayuma ko asaabat ni daawatu saadi gis nga mbokk jullit loolu mi ngi am ba tey benn waaye dafa dugg ci jàkk julli ba pare am ko fab ay dàllam bi mu génnee mu xool mu duggaat ci biir jàkka ji ki ma ko nettali xam na kim doon te ki ma ko nettali fiqa la waaye paa bi duggaat ci biir jàkka ji ne yow yàlla kii nga xamante ni moom moo jël sama dàll yi de baalu ma ko tooñ na ma mu génnaat ci jàkka ji daje kuy ñëw ŋàbb ay dàll la tànk baa ngi naan satatatatatatatat ak deret bi mu yegsee mu ne ko téyel jëlal say dàll mu ne ko dél la mu ne ko dama jéggal ma rek mu ne ko bala maa jéggal da nga may wax lu xew mu ne ko dàll yi dama koo sàccoon damaa génn dox tuuti rek pont moo ma jëm ba àgg na ci sama yaxu tànk bi ma xam ne lii du neen moo tax ma delloo si dàll yi gis nga daawatul mazlum ma nga fam nekkoon ba tey ba tey ci suba laa wax lii may wax nii ci xew-xewi jamono la bokk nekkul ay salafu saalih mbaa jamono ji yàgg bi beneen bi ci des mooy tudduma ko sànq ci wàllu Zakaria gis ngeen Zakaria bi muy ñaan yàlla doom rabbi inni wahana al azmu minni yow sunu borom fi mu nekk nii day sama yax yi day fi ne kumur na wastaala rasu shayba bopp bi tàkk na jëppet bi jaaw xool alquran ni muy waxee xam nga bi jaaw naa bokkut ak tàkk naa jëppet ak bi jaaw xam nga bu ñu diggee diw waa diw nu mu def ñu ne ah diw kat moom moom léegi sax dafa commencé bi jaaw waaye yow diw yii ko koy tàkk na jëppet ak bi jaaw ça veut dire que même boo ko gisul da nga xam ni bopp bi jaaw na ba weex taal moo tax gis nga alquran alquran mbokk yi dafa kéemaane isticaalu naar mooy bu jafar safara ne ba xëñët jóg ca kaw waaye yaram wi dem na ba forme bi góor war a am pour mën a am doom dépassé naa ko bopp baa ngi weex tàll ak ba jaaw kon war na ma page âge bi mi âge bi mi amee doom waaye ngëm yàlla gee tax walam aku bi duaika rabbi shaqiya ban léegi tey laa gën a am confiance ci ni yàlla mën nga ma may doom parce que yàlla yujizuhu shay yow moom yaanan di nangam def say calcul ki teg mbir mi suñu borom amul calcul moom mbir mi calculoon nañ ko qabla an yaxluqa samawati wal ard bi xamsina alfa sana wa kaana arshu ala alma maanaam mbir yi yaay calcul du ko defee lii mu def lii égal lii dugg na fii mathématique yi nit ñi def fii ñee def fee suñu borom calcul na lépp junni at juróom fukki junni at dooga lal asamaan seeg suuf kon ndekete yow lan moo la dal ba tax nga yaakaar ne fi nekk da ngay di amane sans feewlu yaakaaratuma diwéer yaa xi jullit du wax loolu loolu kenn du ko wax man de suma tànk bi opéré nañ ko deux fois kii damaa yaakaar dootul déedéet ahsin dhanna ila rabbik yent yàlla bi nee na li nga njort ci yàlla rek nga cay fekk gis nga toujours bu dul woon ak bañ a naagu tixit ku tixit ngay demee maanaam version tixit ngay demee mooy toujours nga gëm ni rek yàlla soo tala lépp da koy baaxal te loolu mooy li am nag ndax musiba su amee rek moo asab musibati fa maak saba ay diikum yaa ko def wa yaafu an kathir te liñ la jéggal kenn xamul num toll wa inni xiftul mawali min wara i maa ngi nii dem naa màggat aw may doom te fi nekk nii surga yeeg ñoom ñëpp ku leen yilif sax amul ci biir kër gi wa kanat imra aqi aqiran xoolal loolu moo gën a yéeme nag sabab moom sabab yi dàqu na ci soxna sabab yi dàqu na ci xam ngeen luy aqir waxul sama soxna dafa yéex a am doom de waxul amul doom de aqir ci lugal arabiya mooy ku jaasir ku jaasir mooy aslan ba keroog ngay faat doom doom allahu akbar mbokk yi xoolal yi mawaani mawa ma ma ma maaniu ndaw si moo gën a garaaw maaniu ku góor ki ndax aqil ku ko def mooy ku jaasir mooy yow moom doo am doom amul ñaan amul dara waroo am doom ci nattu doomu aadama waaye kii moom màggata te gis ngeen ko de ba am 80 ans am doom gis ngeen ko am 60 ans am doom kon yooyu sabab la yuñ yaakaar ni du ci amee doom bii nag kenn yaakaaru ko dafa wóor ni du ci am doom waaye ànd ak sabab yi ak sabab yee yëpp boo leen boole teg leen fii ci kaw taabal ji gëm naa ne yow sunu borom say mbir romb na kaw taabal xam nga mbir mi lan la walam aku bi duaayka rabbi shaqiya te léegi aw ma découragé ci gëm ni man ngaa nangu suma ñaan waaw loo bëgg mu ni fa hab lii min ladunka waliya noonu la ñuy ñaanee doom mbokk yi yàlla ma yàlla may ay seex yàlla ma yàlla may doom ju góor loolu nga dégg nit ñi di ko ñaan yàlla ma ay dama bëgg ay seex yu góor d'accord bëgg-bëgg la waxuma baaxul waaye du noonu la ñuy ñaanee ii man kay fi na ay seex rek lu ma moom moo ko gënal yaa xi bu seex gënee day ñëw mu seex yu góor sax laa bëgg man seex yu jigéen laa bëgg man kay dama bëgg taawloo góor dama bëgg taawloo nangam gis nga boo demee ba toll ci ñaan gis nga kii ab yonent la dem ba toll ci war a faatu ku ne xam ne bu doon nat doomu aadama doom ju góor la war a soxla waaye rabbi yow sunu borom fële mu ni habli min asalihin may ma doom ju baax fa habli may ma min ladunka waliya nit ku baax laa bëgg wali wali dana nekk góor dana nekk jigéen dana nekk ay seex dana nekk fa habli min ladunka waliya walladina yaqul rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun ñoom duñ distingue ay seex aki góor aki jigéen aki nangam aki nangam ak ñetti doom ñeenti doom d'accord nit ki sax xëy na da nga toll foo xam da nga am sa bëgg-bëgg wala nga wax ko waaye ñun saa booy ñaan loolu ngay ñaan du kenn du ñaanee noonu yarisuni wa yaris min ali yaqub wa jaalhu rabbi radiya yàlla mu ne yaa Zakaria Zakaria mu ne naam mu ne ko innaa nubashiruka yaa yaa yaa yaa unni daala fi lxiin nagat Zakaria mu ne naam innaa nubashiruka bi gulaamin ismu Yaxya dama lay may doom joo xam bu juddoo Yaxya lay tudd. Yaxya li annahu Yaxya Yaxya lay tudd parce que day dund Yaxya lay tudd lam naj'al lahu min qablu samiyya ku tudd Yaxya musul am mbokk yi kéemaan rëy na de. gis nga léeg-léeg nit da nga am loo xam ne dafa lay bett ba da lay jaaxal da nga yaakaar lii mënta nekk sax an naa yakunu li waaw léegi da dafay laaj Zakaria moom lim ñaan lépp ak concentration bi nga yaakaar ne affaire dara du ko ci bett waaye bi ko suñu borom dama la koy may léegi léegi mu ni ko an naa yakun affaire bi nu muy nekkee ndax da koo gëmul ahankay waaye da lay xéewal da lay bett bett goo xam da ngay saalim nan laay amee loolu te sama doom te xoolal fàtte na boppam léegi de moo lay wan ne sabab yi mu am moo gën a moo gën a néew nan laay defee loolu te sama sama soxna si mënul am doom sunu borom wax ko na muy defee ba doom am kon bokk julit yi loolu boo ko toppee doo xaajal doo jeexal tomb bi may jeexalee defe naa waxtu wi jeex na mooy ñaan mi ngi fam nekkoon ba tey tey la nit ki gën a porté pour toroxlu suñu borom sabab lu ñaan ko xëy na dana xat lii tax suñu borom nangu ñaan ak yëpp indi ko ci waaye dama koy ma bastal rek mu gàtt gis nga am na benn waay boo xam ni yàlla da ko nattoo feebar mu feebar feebar xol feebar bi jéggi dayo ba buy dox léeg-léeg day jël loxo bi di ko téye ci xol bi nii mu dem hôpital def ay analyse yu bari ay rajo kenn gisul dara médecin bi saa bu ko xoolee ni ko ñun affaire bi li ma jaaxal mooy man duñ gis dara mu dellu si këram jël ndox def ci lem mu ne yow sunu borom ndox ci jëmmi boppam day faj lem bu àndee moom kese day faj te yow yàlla fatiha day faj fatiha laa lay ñaan yow sunu borom nga saafara mbokk moom ci lii la wéree kooku mi ngi dund ba tey faatoogut man xam naa ko am na benn waay boo xam ni dafa amoon problème këram problème bu métti bu jéggi dayoo xelam nekk ci téemaa dem ci sëñ diw mii leb ko cent mille francs ba jamono ja jamono njatt ma ba mu yàgg mu ne man daal diw mii dama ko rus daal man daal mënuma loolu man naa ñaan yàlla rek mu julli ñaar rakk ñaan yàlla gis nga fi mu tokki sa jaada bi mu doon ñaanee wallahi diw moom moo ko fa fekk jugi fu sori ñu toog di waxtaan ba waxtaan wa àggal mbokk ma nee na diw moomu jug di ko gunge bi mu koy gunge ba àgg ca taliba mu daal di génnee cent mille francs ni ko lii kat nga dimbali ko ko dama laa gëj a gis beneen waaye ngi boo xam ni dafa am bor bor bi daf ko sonal trop mu dem ba njatt ko xelam dem ci xadisu abi umama albahili yent la ko fekk mu jaaxle ci jàkk ji waa lu xew mu ne ko mën dama am problème bor bu mënta fay yent bi daal ni ko moom loolu kay kaay ma xool la dóor fii ci mbagg mi kaay ma xool loo xam soo ko defee yàlla fay say bor mooy allahuma kfini bi xawlika an xaramik wagni ni bi fadlika an man siwaak abu ayuba nen dama ko def rek ku ma wax sànq du abu ayuba de maa ngi fàtte saxaabu du abu ayuba mu def ko nee na sunu bara abu umama jazakallahu xeyr abu umama albahili ay borom yor mbokk mi nee na mooy nettali de nee na xelam dem ci loolu affaire baa ngi am nee na bisu mardi muy def ñaan bi mardi mercredi jeudi vendredi vendredi comme tey ndax bàyyi leen xel heure bi heure nangu ñaan la samedi bi mu demee ba dimanche ci ngoon nee na amul benn pexe gisul benn solution mu ne comme ñaan na ah alhamdulilah léegi daal amoon naa benn matériel bu bu cher naa jël matériel bi woo ki ma yoreel bor ni ko léegi boo bëggee matériel bi ñëwal nga jël ko ñu féete ca bor ba soo ko bëggul ma dem jaay matériel bi après ma fay la nee na mu woo ko téléphone bi mu waxee ba àggal waa ji mu ne ko ba ma la koy lebal damaa amoon yéene may la ko waaye dama ne damay bàyyi ba nga fay si mu nekk surprise ci yow yii may wax nii ñi ñi ñi mu xew ci ñoom kenn faatoo ko ci ñépp a ngi dund benn jigéen a ngi boo xam ni dafa sëy ab diir bu yàgg diir bu yàgg amul doom ma xam ko mu wér li may nettali kenn nettaliwu ma ko diir bu yàgg amul doom ñaar lañ ba ñett kenn ki dem na ba wu jëm sax da ko doon gaarawaale ci ñàkk am doom nga benn bis boroom këram daal di dem ci fëgg jaay yi jënd am fa ay fëgg jaay dañ ko ko may waaye ñu amaale fëgg jaay xamis bu tuuti am na xamis boo xam daanaka xamisu liir laa ko mën a tuddee loolu moom du lu ñuy fa xam xam naa da caa taab bi rek jëkkër ji daal di tafaawul yëkkati ko jox ko ko ne ko lii day da nga koy téye nga téye ko amaan na tey ñaan yàlla yàlla na la wërsëgal doom ndaw si téye loola di jub guddi di ñaan li gën a yéeme mooy yàlla wërsëgal ko mu am doom ju góor amaat ay doom yu góor teg ci ba si ba tey jii xam naa ndaw sax ba tey mi ngi téye xamis ba nee na du ko du ko mos a bàyyi mukk mi ngi ko denc xamis ba xamisu liir la ba léegi mi ngi ko denc bi ci mujj ku may wax semaine bii passé la am doom man mi dem naa ca tudd ba mu demoon na ba découragé ne du am doom dañ daan waxtaan man ak moom bis bu ne ma di ko wax ci wàllu ñaan ak ngëneel yi nee na benn bis muy tukki fekk borom këram daa am fu mu dem mu ni xaaral comme tukki barabu ñangu ñaan la xaar may ñaan ci yoon bi nee na muy ñaan di ñaan gis nga ci tukki boobu ci la jëlee ëmb nee na bi mu ñibbisee ci la sentir dafa jëlal fóot mu xool nekk dafa ëmb maanaam ci gàttal waxtu bi dab nañu waaye bu ma doon indi ay misaal mën na ma indi misaal yu baree bari yoo xam ci jamonoy tey jii la yoo xam ne ay nit ñi ngi koy dund nga xam ni kan mbokk jullit yi mbir yaa nga fa mu nekkoon ba tey toroxlul sa borom yàlla wéetal ko moom kese del lekk lu lew te it booy ñaan jiitalal istighfar ak julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam comme ni ko ibnul qayim di waxee sarxeel jiital soo paree julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam soo paree jéggalu say bàkkaar boo paree bàkk yàlla kañ ko tagg ko seet ci ay turam yu foor yu sell ndax yépp foor na sell na waaye gën a farante kaw am na nga tànn lu mel ni alxayu alqayum nga xam ne mooy ismullahi al azam comme ni mu ñëwee ci xadis yow sunu borom yow mi alxayu alqayum maa ngi lay ñaan ci wépp tur woo xam ne yaa ko denc wala nga wàcce ko sa téere bi wala nga xamal ko say jaam yàlla nag ma fajal sama aajo ji ibnul qayim ne lii ku ko def yàlla nangu sa ñaan te wax na dëgg kon mbokk jullit yi dafa mel ni li ñu doon jéem a tënk sax genn wàll gi du mën a am ci waxtaan wi waaye daal ñaan fa ma nga nekkoon kon nag ida sa'alaka ibadi anni comme koor jegese na suñu borom mu ne fa inni qarib mbokk jullit yi nañ ñaan yàlla saxal nu ci liñ nekk wóorul ba xam daan ci faatoom déedéet ihdina siraatal mustaqim ñaari yoon ci suba si ñeenti yoon tisbaar ñeenti yoon tàkkusaan ñetti yoon timis ñeenti yoon gée muy ñaar fukki yoon ak nangam ci bis bi ak say naafila ñu ngay ihdina ihdina ihdina moo tax ashaabul kahfi la ñuy jàmbaare jàmbaare rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ihdina siraatal mustaqim allahuma hadina fi man hadayt gis nga ñaane hidaaya ngay ñaan ñaanal yàlla gindi sa njaboot gi jamono dafa yàqu baax taxul sa njaboot baax ñaanal yàlla musal la ci xeeti feebar yii nga xam day toroxalaate am na xeeti feebar yoo xam wax dëgg yàlla day day gàcceel doomu aadama yow yàlla xeeti feebar yi nga xam day doyadal doomu aadama nga mën nga dem ba saalit ba nga wedd yàlla sax ñaanal yàlla mu musal la ci na bokk ci say ñaan yàlla bu la yàlla fitnaalee jigéen wala alal ñaari fitna yu garaaw ngi yoo xam ne ponkal moo dégg mu daanu rek alal la ko daaneel wala jigéen muccagoo nag parce que faatoo boobu ñaanal yàlla sa axiru kalima min adunia nekk laa ilaha illa allah mën a mbokk julli nekk ci daaw bi amal njëriñ daaw bi di liggéeyal daaw bi dem ba nekk say mujjantalu dund te laa ilaha illa doo ko mën a wax ذلك هو الخسران المبين أعاذنا الله من ذلك وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين